jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyuwaatee am mbégte kontaatuma saa su ne di jàkkaarloowaat ak yéen fii ci Siweul ko TV comme ni ngeen koy faral di defee nee leen di leen àndal ci li nga xam ne moo di actualité mais di leen nga xam ne naa képp koo xam ne da nga nekk influenceur mbaa ngay dox ci actualité rek ñu lay seeti di waxtaan ak yow tey nag ñu ñëwaat fii ci affaire euh, chef business euh, may laata loolu damay wax euh, bonne et heureuse année xam naa ne gaa ñi namoon nañ ma lool waaye maa leen raw di leen kontaanee ci weer bi nga at bi nga xam ne dugg si nañ ko ci mu nekk atam jàmm di 2024 yàlla suñu borom Ah, sàmm ñu aar ñu ah, defal ñu tawféex comme Sénégal njaay ni ñu koy faral di waxee mu nekk réewum teraanga jàmm ji ñu xam sax fi dàkk yàlla defal ñu ko ñu ngi jub ci li nga xam ne moo di élection mais yàlla na ci yàlla def jàmm def ci ndox mu sedd ba lépp loo xam ne maanaam lu ñu mbibal la mu nekk jàmm rek ndax ñunu jàmm rek la ñu xam aca ñu ngi leen di kontaan yi bu baax a baax tey nag dañoo ñëwaat ci beneen numéro ñëwaat ci beneen interview boo xam ne nii dañoo dalal beneen daanaan tey nag dañoo seeti waa ah, dalal koo xam ne nii di xadi bu di doomi Sidi Diop ci asaf business fa seene lang waxtaan ak moom xam naa ni euh, showbiz bi yëngu na waaye moom dina ci wax lu bëree bëri Khady maa ngi lay maa ngi lay fay insisté waatal si doom Khady doomi Sidi Diop laa dalal tey maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñi ñuy setaan ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam di nuyu sama papa Jóoba Juba Roxe ak Aaroon nee naa la man yaa ma a nekk géwél yow rek laay topp nuyu ma ko waxaatee nga ne waxal <laughs> ak Aaroon tax a nekk géwél ragaluma lool. mais xarit est-ce que nekkul ne da nga dégg rek gars naan doomi diw moo tax nga ñëw ne yaay doomi Sidi Diop. déedéet du loolu ñun depuis 2017 ba ñoo ngi ànd ak moom. Mm. Uh-huh. Sidi suñu papa moom lañ bëgg te moom la ñuy àndal. Uh-huh. depuis 2017 ba léegi yéen a ngi ki nga xam ne moo di Sidi Diop ah, tey boo ma dee ñëwal ba li nga xam ne moo di 2024 sa diggante ak Sidi Diop lan. ah kontaan si moom rek parce que moom chaque jour li ñu bëgg loolu la ñuy defal ñëw woy ambiance dem nekkul si ay détails tontu. kenn moo tax chaque jour ñuy ay doom ñun ñoo koy tontul. arrêté foofu Sidi tontu na. non non tontuwul kenn. Sidi nee du kenn loolu kay tontu la. waaw parce que wax na dëgg du doomu kenn ku bëgg doom da nga koy wut ci moom Omar Diop mooy baayam du doomu kenn. waaw kon loolu tontu la ndax parce que da nga ne. tontuwul dafa leeral rek. Hmm. lool nekkul tontu. mais mais mais euh, ñu tuddee leen Fere Kecce. Fere Kecce ak Faramareen diggante coow di ci am si diggante à chaque fois rek ñu gis ne seen élément day jógee fii dem fee lan mooy waral loolu. rek. ñii bu ñu waxee rek yéen benn baat boobu ngeen wax gorewul. waa mais xam nga yow mënoo commencé benn affaire nga bëgg si loolu noonu da ngay toog nga xaar peut-être gënoon na metti ñu toog instant yi luy ñëw nii moo gën a neex ngay dem fooy dem doo toog. mais yi nee nañ ci ma maanaam euh, li muy li mu leen di jox doyu leen. li mu tolloo rek lay joxe. nit li nga da ngay xaar sa wërsëg mais doo ko dabu loolu baaxul. mais kon kon bul bul bul bul balaamee ñi nga xam ne tey dañoo dem wëri ji seen wërsëg. non non loolu du wërsëg de ñoom seen xaalis la ñuy jaamu ñooñu. ñu dara xaalis. mais gis nañu Omaro moo njëkkoon a nekk ci yéen di leen dooleel waxoon fii day joxe bakkanam ah dem bay jamono ñu gisaat ko Faramareen ah kii di Ndeye Ndiaye ak kii nga xam ne tamit euh, moo di njàpp loolu lan leen def maanaam ñu leen di vidé di xëcc di nga xam kookaan la. Omaro benn ci yéen la nekk. Hmm, man xaw ma ko. xamoo Omaro. man daal xam naa kenn moom boroom bakkan moom nga xam ci moom. Hmm. xam naa kenn daal amoo leen amoo leen na leen njëriñ de ndax nekkoon na foo xam ne nii ah, ku leen laal mu jóg. déedéet kon xaw ma kooku ki fi daal woote woon si benn daral woo ay journaliste jël ay xaru jàmbur Sidi moo ko fay kooku laa xam mais xaw ma Omaro. Eh, loolu ngay wax am na code ma kooku. loolu ngay wax noonu am na code de leeral ma loolu nga nekk fi jëloon la. ki fi wowoon ay journaliste jël ay xaru jàmbur tekk nee na day dóor Sidi de moo ko mujjee fay kooku laa xam. maanaam lu mu defoon xar yi da koo jëloon di ko maye ci koy maye mayewu ko si turu si de si turam nee na koy maye. boobu bi si tabaski bi léegi mi xaw ma ko xaw ma kuy maye xar de. mais mais mais ba léegi yéen ba léegi yéen maam gars yi nee nañ fi mu nii da ngeen a tas dara nekkutu fa loo may ñëwul ci loolu en tant que doomu fii dara tasu fi lépp a ngi baax. dara méttiwul. ñun ñii. dara metti wuñu ñun jóob nay way rek ñun ñooñu ay ñeneen ñi sax garaawul ñun jóob na ñëw way rek dem ñun loolu neex nañ garnage mhm. euh, bi ci diggante siidi Diop ak Wally Seck ah yéen ñi nga xam ne yéen a féetee côté Sidi Diop tey boo ma ñëwoon ñëwal tuuti ci diggante Sidi Diop ak Wally Seck. kuy kooku. Ah, xadi bu xamoo ah, xaw ma ko fan la nekk Sénégal. kii lëmba réew mi borom réew mi nga xam ne xale yeeg ko dipp. ah xaw ma ko dëgg fa yàlla. mais lan moo tax yéen waa kër Sidi du ngeen nangoo xam ah, ki nga xam ne moo di Balla. waaw mais man xaw ma ko man Sidi rek laa xam. Diop boo bëggee ñu waxtaan foog nga xam maanaam Sénégal nga dëkk fi nga juddoo yaraw fi di doomi Sidi Diop kon xam nga Wally Seck. xaw ma ko. dañ ko. waaw ba tey xaw ma ko daal man daal Sidi laa xam Diop ba jubaroo yaakaaroon na sama waa ji moo mën kay moom rek laa xam. Sidi. Mhm. mais ñi naan Sidi instant yi fu mu nekk arrangé wu ko parce que dafa nekk labal boo xam ne dañ koy fay mënut a fayaat. yàlla ko arrangé wul woon du fa ko bu baax nañ bàyyi yooyu arrangé na ko de. Mm. lu leer laa la wax. nga mm. mm-hmm. ne yaay doomu Sidi waaw ban position nga taxawee ci Sidi. xanaa ku wax si moom lu bon rek ma génn wax ba mu baax parce que moom lu baax la xam lu baax lay def deful dara lu bon nañ ko bàyyi xale la dafa nekk si yoonam nañ ko bàyyi mu liggéey. kenn defu ko dara de. en kay. ko def bëri na. lan lañ ko def taanay wax ma. sàcckat xari. sàccxatu xar. Ah, liñ koy def daal bëri nañ ko bàyyi daal mu nekk si yoonam. waaw. Ah. mais gars yi nee nañ yéen yéenay escalier bi da ngeen di defar ñuy jël. waawa waaw ñii ñiy jël ñoom ñoo xam ñii dem tamit ñoo xam. mais mel ne da ngaa mer ñiy dem man mii dem defuñ dara dañoo war dañoo war a dem rek dem man de yow mii dégg naa yaa ngi waaj. man mii yàlla tere xaama faxas samay nopp kooku bakkan laa ko jox su ma ko dindee rek damay dee. ci loolu ñu fi joxe ñu fi joxe woon bakkan génneel ci loolu am na ñu fi joxe bakkan. ah man de sama man benn bakkan rek laa am jox naa ko Diop moom xam na loolu sax. mbaay mesure nga li ngay wax. bu baax. soxlawu ma ñu fi joxe woon bakkan xam nga lool moo ñooñu ñooñu. ñooñu ah, bakkan bokkuñ. bakkan yi bokkul de. bakkan bokkuñ. loo jox Sidi. bakkan bi ak xol bi ak yépp daal lépp loo gis si man rek siidee ko moom. Mm-hmm. moom rek laay topp. moom ngay topp nangul naa loolu. mais jamono ji tendance xam nga ñu gis ne décembre bi ah, ah, kii di waa Faramare nii feesal ko dell maanaam amuñ sax temps bu ñuy récupérer ci li. mooy seen décembre yéen gisuñu ci date lan moo waral loolu. ah ñun décembre bii li ñu joué ah, dañoo joué ba mënatu ñoo joué. ngeen te ngeen doon gérer ngeen. te yow da ngaa neex boo ko waxaatee dama lay dóor. bon dama fayu de ah ah mais gisuñ seen concert ou dara wala. ah décembre bi concert nañ ba concert fu dara nekkul ñu danoo concert ba jóob baat bi dama fa xaw a changé mujj gi son bi ñu bi ñu mujjee dafa changé baat bi parce que lim joué moo ëpp waaw date dañ ko mujjee pause. waaw géej la mooy loolu. xaw ma ñooñu. si yéen lañ yéen lañ ko tuddee. ñun ñëpp fara ceekki déedéet déedéet. waa Kër Sidi Diop. waaw loolu laay bëgg di dégg del insister si loolu. mais damay dégg waa Kër Sidi Diop di wax benn wax ne li ñu defaloon Ngaaka Blindé ak ki nga xam ne moo di euh, waa Mbour nu mu tuddati waa Akhlou Brick mm-hmm. bu ñu ko defaloon diggante Sidi Diop ak Wally Seck ñu xam ne Sidi moo dàq way Wally. kenn waxatul loolu jour boobu de barki sëriñ si <laughs> billaay wallaay taala Sénégal mooy lemu Diop de bu nee der. ñoom ñëpp dañuy xaar moo leen dàqa way waaw lu leer laa la wax. dafa mën dafa mën fi ma ko teg bëri na barki yàlla dafa mën barki sëriñ Saliou. mais mais waa kër Waly nee nañ musique xaalis a koy def. xaw ma ñooñu. c'est que nag xadi man bu bëggee ñuy waxtaan mu neex. da nga may xamal ay nit ñi nga xam ne ñoom laay tudd ndax mu doon leen ñàkk bañ a xam ci ma laaj man ci ñi ma xam man Sidi Diop laa xam ak sama papa manager. waa xam nga ne boo xam Sidi da nga xam mun ta ñàkk parce que yéenay concurrence jamono ji xaw ma ko laay xaw ma ko la nekk fii Sénégal lay lay musique wala mi ngi Mali. ah loolu tax mënu ko xam nag man xam nga dégluwu ma musique gu Mali yi nag loolu la moo tax xanaa après nga won ma ko sa téléphone. ka ma fi dàq waay. Sidi Diop sama papa ji Diop ju roq yaag sama waa moo mën kay damay hésité. <laughs> yow ni waaw waaw. dafa mën. mais danga may tegal ne fan yow euh, ñun ñu gis ne. durant benn benn année benn année seen seen trois éléments wala quatre bëri na sax euh, mën naa diir quatre ba cinq yoo xam ne nii eh déglu ma fii seen i éléments yoo xam ne jugee nañ ci seen seen seen seen seen seen seen biir milieu ñëw ci ci ci faramaare nga ne yéen a dàq man de kii laa xam yooyoo ak jibi ñooñ dalaa xam si fecckat yi ñuy feccal sii di ñeneen ñi xaw ma leen yooyoo ko kan xam ah xamoo ko man de moom laa xam dëgg fa yaa boo bëggee dégg njàpp la ñu xam ak nday jaay bànneex xaw ma xaw ma leen wax dëgg fa yàlla xaw ma leen. bu Ndeye Ndiaye di fecc ak njàpp fan nga nekkoon kon si Sidi. ñooñu nekk déedéet ñooñu mosuñoo feccal Sidi Sidi xamu leen Sidi yooyu la xam ak jibi. xadim yi du ñu wax ak moom. ah nga ne Ndeye Ndiaye ak euh, ak Sidi Diop maa ngi juum sax Ndeye Ndiaye ak njàpp ñoo feccal Sidi. yow maa ngi ci réew mi di si fii la woon Sénégal yëguma ko. ko. maa ngi woon fii chaque samedi fu mu tëgg damay dem waaye ñooñu moom wax dëgg xaw ma leen. mais dafa mel am xol bu métti bu ngeen amee. dafa mel dafa am lu leen ngeen di bu ngeen di bu ngeen di def seen seen seen i interview am lu ngeen waxee dafa mel ni ngeen am lu ngeen di dégager lan mooy problème. man ah wax dëgg fa yàlla ki ma àndal bañ na ko ba xol bu rafet la yor réew mi ku fi sant Jóob rek sa xol day rafet. Ah, léegi nag kon boo toogee ma xaw ma diw. waaye dama leen a xamul nag xaw ma leen bu ma leen foosee xaw ma leen. 2017 nga nga ànd ak Sidi Diop de. Ah. waaw. 2000 ah, 2019 bii njàpp doon fecc ci kaw. ah yëgu ma ko ah yëguma ko eh? yëguma ko de. foo nekkoon yow. jibi eh? jibi laa xam. non far nga nekkoon laa wax bi njàpp di yéeg ci kaw. non kon kooku man xaw ma. moo leen boole wax ma rek xam nga nee nga yaay doomi Sidi Diop xam nga relation bi nga xam ne amoon nañ ko parce que njàpp yàgg na taxaw ne Sidi sama papa nga mhm. ah te coow li coow li daanaka ah, bëriwutoon ndax nee na eh, Sidi mooy sama papa Wally sama papa Wally na leen ñaar ñëpp maay seen papa loolu coow li. yéen ñaa ñi bàyyi seen papa day daa réer ba suure xëy na di wax lu ko neex. papa nag loolu la yàlla tere papa. ñëpp nangu nañu. déedéet ah man de nanguwuma ko neel yow. mais mas naa wax ne Waly yaay sama ah, ko. Ah. moo tax doo nangu. lan laay nangu man kay na mais di li nga xam ne tey liñ naan vaar dafay amoon gone yee ko génne man du sumay wax de. Ah, man de gisuma ko xanaa boo ko gisee soo paree nga won ma ko. mais tuuti rek ban problème ngeen am. yéen ñi nga xam ne yéen yéen yéen yéen a nekk suba teel yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci ginnaaw su euh, Sidi Diop maanaam daa mel da ngeen siisante loolu laa dégg siisante yàlla tere ñun ki ñu boot xamul loolu yareewuñu loolu te ñun kat di bi carrière am àndeek moom kon ñun xamuñu siisaate ñun siisuñu kenn ku ñëw bokk li tax nit ñi di dem ah ñoo xam ñii dem daal ñoo xam ñun de dem man de dew ma waaju ma maa ngi toog eh, ne demaguma yàlla tere dafa yoru béy nu ma xar yaa ngi wàcc wax ji ngay wax ni fi toll nii da ngay génn yaa ngi ci wàccaay bu lay bu lay faramaane di okk ngay génn. yàlla tere man sii di toppewu ko alal dama ko bëgg te yàlla tax kon xam nga mënu ma dem man sii di damaa fekk ma tee joxlawu ma dara moom man moom nay am jàmm rek du xaalis moo tax ma topp ko ñiy dem xaalis la ñuy jaamu. dañuy liggéey nag. liggéey waaw dañuy liggéey mais li ngay liggéey foofu si loolu lañ lay fay kon da ngay toog. nga xaar li ngay fay gisuñ la yi gisoo sa bopp nag. nga xaar boo xaaree benn jour peut-être di nga gis sa bopp. xaar ba kañ xam nga réew mi daal. Hmm. waaw baax na nañ dem kon dem ah. yaa ngi noonu commencement bi de mën na neex waaye hmm. nañ dem ba si kanam rek. nga gis ak loo xalaat. ah yàlla baax na daal. lu wax wax bu ragal lu wax ma rek. Euh, man mi ah yaa ngi bëgg a. man ci àddina. tapet mu ko ci ah. àddina tapetu ma. Ah, nañ dem ba ci kanam ah mais xam nga yàlla moom day àtte te yàlla tey jii bàyyatul ba yem ak xiyam pii la ñuy àttewee. atte dañ la leen di kenn tooñu leen bi yow ko <laughs> yàlla da atte de te dina atte incha allah bëri na man naa droit di liggéey bu dul contrat suma neexee su ma gisee beneen liggéey non non mais am na am nañu lu ñuy sekk man ak yow da nga war a gore toog mhm. loolu la su bu dee damay liggéey rek bëgg am dara di dimbale sama njaboot am naa droit su ma gisee pourcentage bu ëpp du ma dem. mais fa ngay dem est-ce que dina di nga fa am li nga bëgg commencement bi que affaire yi neex rek wante fin bi hmm. fii am na ñuy woote waat bëgg a ñëw de dañoo mënta ñëw. li nga bëgg a wax noonu xarit du ma ko nangu am na ñuy dem yàggu dara bëgg a woote waat. barki Serigne Saliou Mbacke bëgg a ñëw wante fii amatuñ fi place réew mi fi nekk nii ñi fi nekk mën li ñuy def moo bëri. ku dem sa moroom ñëw fi ni nii yooyu mu ngi toj suñu seen bi. xadi insisté ci loolu déglu ma rek fii barki démb Ndiaye ñàppoo dem déjà ba mu demee yàgg na macha allah njàpp moo dem barki démb Ndiaye boo ne ma am na ñuy wootewaat di dawaat ci ginnaaw Sidi Diop daf may jaaxal. bëri na moo waral ñuy jëfaru noonu ne ci seeni di génne ay feem yu bees perte. man de mën ñoo xam ne noppal na leen. Hmm. mais mais ñu woo Sidi la ñu woo wala ginnaaw ñi ne ci ginnaaw. ñi ne ci ginnaaw Sidi moom xam nga xool bay rafet moom ku ko woo mu dalay wax amul problème. ah xol bee rafet moom. Sidi moom moo dàq njàpp. dàq ko dàq. Eh, Sidi moo dàq njàpp. wallaahi lazim dàq ko. Badou Ndiaye mooy sa baay waaw waaw. moo xadi mi yow tamit ah yow nga ne Sidi Diop dàqul njàpp Sidi Diop ah dem soirée waali ñëw. wax li muy wax Sidi Diop fas kanamam ñëw euh, am nu mu waxee. fasu kanamam njàpp ba mu demee ba mu xëyee ñëw na si ñëw na répétition de wala. faale ngeen ko dafa ñëw ngeen ignoré ko. ignoré ñun duñu ignoré waate. Diop xool bee rafet yow kon xam. demal demal TikTok ñu gis nañ image. ah man gisuma ko. bàyyi di ma forcé gisuma ko. da ngay ragaloo gisuma ko. kon damay bëgg ñuy waxtaan ci loo xam ne ni tey moom la ñu gis ñun yëpp moom la ñu dund du dëgg. waa kay tey ñu ñëw tuuti ci Sidi gis nañ ne yéen a ngi wàcc euh, euh, fële di euh, Europe. Mhm. dafa war a tëgg li nga xam ne mooy Bercy. Mhm. waaw gis nañ ne date xaw ma date bi di dimanche fixé ngeen ko ba yéen a ngi ci démarche yi gis nañ ci yenn artistes yi yu mag yëpp sans Wally Seck lan moo waral. kuy kooku nee naa xaw ma kooku. mën a neex parce que ah, xam nga ni Wally Wally balaa ko ñëpp xam nañ ko. Ah, yow dèjà nee nga dëkkul si réew mi kon nan laa koy xamee tamit ci musique. dama boo ne ma boo ne ma Wally fan lay ban fan lay waaye ak musique am fan la fan la nekk xam nga damay jaaxal ndax loolu xale yu ndaw yi sax xam nañ ko. ah xaw ma ko. billaay xaw ma ko. papa Thione Diop. xaw ma keneen. xam nga li may wax ji nga fi waxoon am nañu ko fi ay jamono te dañoo dem ba jëmmi jamono changé waxee neneen te nga ma xam nga ko rek ñu waxtaan ko. ñun du ñu jóob rek la ñuy toog. nee naa toppeewuñ ko alal. gis nañ ko joxe woon ñoo xam benn bakkan laa am. nañ fi ko waxoon na muy neex ak muy naqari maa ngi fi. Ah, man de muy neex ak muy naqari maa ngi fi ñooñu nan lañ tudd wax ma seeni tur. xam nga ñëpp. man xadi laa tudd xadi bu siidi jóob maa ñooñu bokkuñu tur xam nga. kon jeex na. mais ji ngay nekk ak ñooñu nga xam ne yéen a nekkoon fenn ci nekk ci di dooleel Sidi dañ waxante dëgg rek jamono jooju noonu xam nga gisoon nañ ngeen di def ay tendance boole si challenge bi sax yéen a ko téewoon ci réew mi ah, naka ngeen ko doon dundee seen ñan la. ku ci mel ni njàpp ay Ndeye Ndiaye ak Sidi Diop ak yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci ginnaaw Sidi Diop maanaam nekk ay doomi Sidi. waa jibi la jibi dafa mën de moom dafa mën moom heure bu ñëwee si scène bi da koy toj. jamono jamono jële ci ginnaaw laa waxuma léegi. jibi daal laa xam feccekatu Sidi Diop xamoo ko. mooy njàpp numéro 2. ah jibi la tudd jibi. mooy njàpp numéro 2 xam nga yen bu ngeen demee bay am numéro 2 rek mooy cela veut dañ leen a paas keneen njàpp numéro 2 la. paas. Eh, moom is xaw ma ko jibi daal laa xam ak yooyu. mën ndigg li gis nga ni koy def. rëgëj rëgëj eh boo mën ke moo mën nag yee eh. dafa mën. jibi waaw ak yooyu yëpp. tey la sii di tëgg. tey géejawaay. Mm-hmm. pare nga nii. takku naa ba dëgër su ma paree fii maa nga fa. Mm-hmm. man Jóob rek laay topp ku dul moom topp man. dañuy gis ne éléments yi nga xam ne ñoo nekk fee ak éléments yi nga xam ne ñoo nekk fii gars yi ne nañ jama c'est ma opposé ñee boo demee seen seen dañ lay teral boo ñaanee oto sax ñu may la te waa Kër Sidi nag moom ah, hmm, oto yu bon caat sekk nee na oto bi baaxul de man di gisuma kuñ may oto ma gisuma ko. may nañ yu bëri. ah yëguma nañ ko oto. ah gisuma xaalis jënd oto sa xaalis lañ ko may bu bëri. ah gisuma bi muy nekk fii ci ci seenu Sénégal fii lañ ko may lu tolloog 5 millions. mu jënd oto yëguma ko loolu. oto rek lañ hmm, ko may. ah waaw ñun nekkuñu di maye di ko wone li ñuy maye si suuf lañ koy maye li ñuy def si suuf lañ koy def. waa defuñu pour ngistal dañuy def te yàlla tax yow tamit Matar Diop suba teel lañ àndal suñu PDG lu ñuy ragal kooku oto galax ndikukaay la ko def patak boros aji jërëjëf léegi wala ma lay bàyyi xam naa di nga ñëw tuuti ci mbokk internet yi nga xam nga xam ne moo di Sidy tey boo lu la gën a marqué ci ba nga xam ne dugg nañ ci yàggul dara lan nga may ñëwal ci sa diggante moom. lépp mm. lu mu def neex na ma xam nga bëgg waxuma foofu fi kenn ku ne am nga koo bëgg mais ailleurs ànd bi ngeen doon ànd depuis ba nga xam ne 2024 lan moo la ci gën a marqué ci sa diggante moom. lépp ma marqué ba ak Serigne lépp. lu mu ñëwul benn benn benn benn benn benn benn kii boo xam ne sax dund nga ko ko ki nga xam ne mooy sax artiste. bëri na man chaque jour maa ngi dund man xoolal ma koy gis muy way rek neex na ma taxaw ne seen ko mu ne der rek loolu neex na ma lu leer laa lay wax. Mhm. ngeen déggee na mooy bàyyi waykat lu ngeen. Hmm? yow bàyyi Sidi Omar Diop mooy baayam man mii Sidi mooy sama aw mu keneen yëgu ma ñeneen yi xaw ma leen. comme que nangu nga ne Sidy sa baay yow war ngaa nangu ne kon waykat yi war naa ne seen papa. déedéet loolu la pataron la ko jur ñi ko ñi nekk moo bëri te soo ko bëggee jur da ngay juraale ñëpp te loolu mënul nekk arrêté leen. waaw arrêté. yow mii di wax ay. man dé man man man damaa dégg rek jaaraat ci. Mhm. Ah, waaw li ma la wax noonu nag bàyyi ko jàpp ko bu baax. Sidy pataron la. ñi yaakaar ci moom. pataron cela veut chef la. dañ koo chef parce que dañ koy. moom de mooy sama chef man. te dafa am nekk si yow da ngay da nga am salaire yow. man man nee naa la soxlawuma si Sidi salaire toppewuma ko alal dama ko bëgg te yàlla tax lu mu def neex na. Mhm. te du ma nangu na kenn di ko wax lu ñaaw wala lu bon. waaw mais tey ñi leen ko franchement. nit bu baax la bark Sidi am na yar am na man des fois damay dugg si taxi. di déglu son wala dara damay kooku dana man de sama woykat mais yar bi mu am ak teggin bi. dafa baax barki alxuraan. ndax ba ñu jaamu dem feneen ak feneen ah, jàpp rek te wa bàyyi te xam ne loo xaar moo lay fekk mais loo xaaru du la fa fekk te wër sa kenn du ko dabu dangay ngay toog xaar mu fekk la fi nit da ngay ànd ak moom te yàlla tax gore xaalis du dara day jeex. fi instant yi avant Sidi am na ñu fi nekkoon déggatoo leen Sidi day dem ñeneen ak ñeneen ñëw mais affaire yi dafa war a rafet mais jàpp showbiz bi saltel ko rek paa bu perte jànkatu xasaayit perte ba yàqu jàpp showbiz bépp yàqu ko ba mu yàqati ko ah ñaaw na moom xam naa ne. am ko ko moom de ah xaw ma ko perte nga. Mm, borom garambu buy. xam naa du ma ci xam naa ne dama daal di bàyyi rek émission bi daanaka lañ ñu mayoon ci jeex na mu bàyyi la rek. di tàggatoo mbokk yi xam naa du yàgg dara dinañ ko euh, seqaat euh, man ak yow woo xam ne ni ñu gën a yaatal ndax euh, comme que da ngaa nekk ci yoon war a dem géej waaye seeti sa papa ma daal lay bàyyi rek nga tàggatoo mbokk yi nga xam ne ngi lay suivre. Mm-hmm. maa papa comme ni ma ko waxee woon ci commencement ba Diop Diop Roxee ak Arona nee naa la yaa tax a nekk géwél di nuy sam papa nag ménageur jékki mu baax mi ak baax ci man. di nuyu Babacar Cheikh Amar sama waa ji borom marché Ocass moom tamit borom téléphone yu baaxee kenn du moom si man di nuyu sama yaay ak sama papa sama sœur yëpp maa leen di nuy di nuyu sama président maam Fallou di nuy si di famille bi yëpp maa leen di nuyu di leen sax di mhm. merci beaucoup maa ngi lay kontaanee bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf ñoo fay. ayca jërëjëf merci beaucoup ñu ngi koy kontaanee bu baax a baax nee naa la mooy xadi bu euh, Sidi Diop ñi naan ko xadi doomi Sidi Diop comme ni mu ko faral di ko waxee rek noonu la bëgg sax ñu koy wooyee xadi doomi Sidi Diop. Euh, ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax ci mbokk yi nga xam ne yéen ñuy suivre en direct fii ci Siweulko TV ah, nee naa leen kenn du yéen ci ñun daw leen gaaw di abonné li nga xam ne mooy suñu plateforme ñu leen di jox à temps réel li nga xam ne moo di actualité mais laata loolu damay bëgg waat sama xarit euh, sunu sunu lépp sax la ñuy wax ndax kër gi duñ fi ay gan muy asaf business euh, nee naa lépp loo bëgg ci téléphone wàllum euh, réparation ak lu mu ci mën di doon rek moom asaf business dala koy defal ci li nga xam nu mu gën a gaawee mi ngi nekk fii ci adresse Yoff dernier hôpital bi euh, Philippe Senghor fi la ne boo fa ñëwee rek nee naa la boo ko wooyee téléphone bi ma lay numéro yi ma lay waaj jox rek moom asaf business di nga ko dégg boo dee téléphone nga soxla mu jaay la ko bu dee ngaa bëgg mu réparé mu réparé la ko

483 boo ko wooyee rek euh, dina ko jot moom HF 19 sunu xarit euh, sunu lépp ñu ngi koy kontaane bu baax a baax ayca merci beaucoup mbokk xarit yi nii lay demee saa su ne ñu jàkkaarloo ak ci Siweul ko TV mais maa ngi nuyu bu baax a baax waa Colobane Saloum ñi nga xam ne kenn ñoom ci man merci à vous jërë ngeen jëf